sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee ko fas yéenee kon euh, pour ñu dem ci clôture bi incha allahu taala comme ni ñu ko waxee rek dañuy jox euh, sëñ Ndiame Ndiaye mu xam te mooy wax ci turu Cheikh. Euh, le maire monsieur le maire. bu defee bu paree ñu jox Amadou Bada bi Cheikh incha allahu taala. bu defee mu jëlee kàddu ci turu ministre bi. après ñu door a jox sëñ Isaaqa Mbacke. mu ñaanal ñu tëj jotaay bi incha allahu taala kon euh, sëñ Njàmme mu am ñoo xam ne ñi dénk nañ leen ko kon sëñ Ahmadou Ba de moom la ñuy ko gërëm ci wàllu googu ndax sëñ bi teg na ko ci loxoom te taxaw na ci taxawaay yi nga xam ne nii ñëpp sedd nañ ko matal nañ ko yal na sa borom dolli ko moo tamit kàttan ci liggéey bi fu mu ko bëgg àggale mu àgg fa bi mu ko defee kon am na groupe yoo xam ne ñoo nekkoon di liggéey ci lii di ay boroom xam-xam di ñu seq njàng mi ak képp koo xam ne jàpp nañ ne war ngaa mën a def dara loo xam ne lii day jëmale kanam njàng mi ci biir dëkk bi ak li ko wër loolu nag bi mu amee njëkk nañoo woote benn atelier boo xam ne bii dañ doon def validation technique lañ njëkk waxtaanee ñoom borom xam-xam yi bokk tënk programme bi. ñu gaaral ko nit ñi ñu am ci ay observation yu ñu ci def ñu dellusiwaat tey ñëw di def validation institutionnelle bi loolu nag bu ñu ko waxee dañuy wax ne sëriñ bi la mu doon deflu gannaaw ba nga xam ne boroom xam-xam yi taxaw nañ ci ba def ci lañ ci war a def il faut que état ñëw moom wane ci cachet kon loolu wane na ne wax dëgg yàlla sëñ bi teg nañu ci aw yoon ñun nag cant gi ñu ci am mooy njàng daa mënta ñàkk ca gone yaa ngi jàng ci ci biir quartier yi classe de fortune bitti dëkk bi xale yaa ngi dem ñu ngi dikk ci ku jox sa njaboot bàyyi ko mu xëy génn muy dem ci xamoo li muy def lan la wax dëgg yàlla sa xel dina dal du daal kon bu fekkee sëñ bi taxawal na lii nga xam ne nii ab programme la programme bi nag li ci ëpp di solo ci ñun mooy dañ ko dëkkal ci murit gi dëkkal ko ci lislaam bi dëkkal ko ci diine ji nga xam ne nii xale yi tey jii menace bi nga xam ne mi ngi nekk ci ñoom di jóge ci télévision bi di jóge ci mbedd mi di jóge ci adulte yoo xam ne xëy na duñu ay model tey ñu wutal leen modèle muy Serigne Touba te ñun ñëpp ñu bokk ko yaakaar defe naa ne loolu moom dal na suñu xel bu baax baax a baax kon li ñuy wax rek mooy ñun de wax dëgg yàlla programme bi ànd nañ ci liñ fi wax lépp rafetlu nañ ko gis nañ ne am na problème problème bu muy réglé ndax njàng mi ni ñu ko doon defee fii ci biir dëkk bi wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne bari ci néeg yor ay juróomi xale wala fukki xale ak xamuñu looy wax xamu def suñ demee ba nga xam ne lii teg nañ ko mu doon loo xam ne nag waajib la ci ñëpp ñu tënk ci dina sécuriser parent yi dina sécuriser élèves yi te tamit dina dina dina ñu dimbale bu baax a baax a baax ci citoyen bi nga xam ne moom lañ soxla ëllëg mooy ab murit boo xam ne bii dafa complet bii mën nañ cee tënk yaakaar bu baax a baax kon commune bi ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci tur Sëriñ Abdou Lahad Ka ci li nga xam ne nii amagum na fi ñu ngi ñaan sa borom àggale ko ci jàmm ci suñu kilifa yi sëñ saax ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax di siyaare ku baax ki nga xam ne mu leen fi yabal ak ñëpp ñi nga xam ne jël nañ ci part ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. xam naa ne nag suñu inspecteurs yi nga xam ñoo fi féet ci dëkk bi ñoom amal nañ leen mention spéciale moo xam muy français moo xam muy arabe parce que suñu borom fàttewuñ ci tubaarkàlla am na ci ñu bari ñoo xam ne nii maa ngi ko doon wax euh, xàmmee naa leen ci système bi ndax ci système bi ci laa bokk ci laa bokkoon ci laa bokk ba léegi donc ban loo xam ne xam naa ko fi kon nag ñu ngi leen sant di leen gërëm ci xam ne ñoom am nañ matière am na nag ay inquiétudes yu ñu fi wax yoo xam ne yaakaar na ni moom bu ñu demee ba interroger li nga xam ne moom lañ fi tëral pratique bi moom mooy moo moo ñuy mujj orienté waat ndax am na ay questionnement yoo xam ne yi puisque bu demee ba teg système bi ñu valider ko ñu commencé ko doxal au fil du temps ñu def ay réglage yaakaar naa ne li Touba dinañ ko am ci Touba amee li mu bëgg ñun wër ñëpp dinañ ko am yal na ko sax borom ba jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Ahmed sëñ Babacar yéen yi nga xam ne yéen a fi nekkal teewal éducation te nga jiite leen noo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mountakha ndokk nag bi ma fi teewee ba yëf yëpp àgg ndax loolu dafa laaj ñaanuk Cheikh Mountakha bu wér ci yéen Cheikh ma Ahmad Badawi mi bi yëf tàmbalee ba tey moom la ko jox maa ngi lay xamal ne mi nga yeesal lépp lu nga xam ne joxoon na la ko di sant nag mbooloo mi nga àndal ci liggéey bii di sant ñi nga xam ne itam mooy sëñ Babacar ñoom ñi eh, teew fi tey ak seen xam-xam seen compétence sëñ bi ngi leen di sant waaye loolu dara bettu ko ci ndax Cheikh Amal Badawi mu doyloo doyloo ko ci lii lool mu nekk ca ca commencement ba baag si fii tey mu di ko gën di doyloo te waxtu ne day def loo xam ne nii doyloo googu day yokk kon nag Cheikh Amal Badawi sëñ bi nee na bis bii mi ngi sant ñii nga xam ne ñoo ñoom nga woo da daje fi ginnaaw bu mu leen santee nag yéen ñi nga xam ne ñi ak yow ci liggéey bi di dox di dox am agsi fii tey lii nga xam ne nag moo waral bis bi moom da ko ñor lool bàgg ci lool ndax mën nañ ne xalaatam bi nga xam ne moo indi lii lépp muy iniwersité bi ak li ci aju moo waral lii tey kon daje bi fi ñëpp daje moo tax te wax jiñ fi wax yëpp di lu amal njariñ université bi ëllëg jàpp naa ne dana amal njariñ senegal gépp kon nag moom ci boppam mun leen a ñàkk sant cant bu nga xam ne amatul àpp ndax moo tax ngeen ñëw fii tey moo tax ñu yabal leen fi waaye moo taxee ngeen sawar ci lool ba ñëw fi tey kon nag cant googu amatul ab ñu leen di ñaanal itam kenn ku ne la nga nekk yàlla gën la caa jox ndam ndam yu mat sëkk barkeb ki nga xam ne moo nu boole fii tey mooy Cheikh Ahmadul Khadim Cheikh Ahmadul Badawi Cheikh Muntaqa nee na lii nga xam ne moom lañu woote tey pour unifier mboolem programme yi mu nekk benn nee na loolu ànd na ci lool bàgg ci lool dégg na ko lool itam ñor na ko lool na nga xam ne nag bu ci am benn jaaxle ci eh, déglu gi nga xam ne kenn ñeneen ñi dinañ ci am geneen déglu ndax jàpp naa ne ñépp a koy dégg te ñëpp a koy joxe doxe Cheikh taxaa nag li muy laabir lépp li muy baax lépp dëgg moom da ca du caaxaan du ko foye ba tax na lii tey bu ñu ko validé moom moo koy garantir ba nga xam ne kenn ku ne dana doxe ci yoon wii nga xam ne tëral nañ ko képp ku nga xam ne yaa ngi jàngale ci Touba danga ci eh, danga ci dëppoog danga ci dox doxin bu dëppoog moom walla am njàngale moom du surtout ko tuddati ci yow noonu la ko Cheikh Mountakha gisee fii ci Touba lii ngeen proposé te nekk ca di ko étudier mu jaar ci yoon ba inspecteurs yi yëpp ñëw mu dëppook yoon bis buñ ko walidee dañ xam ne Cheikh taxaam mooy garantir application bi ci ñëpp kon nag loolu na ci sa xel dal da nga xam ne bés bu ngeen ko defee ba dem ci moom la ca des ci moom lay aju yaakaar naa ne xaj nga loolu dana laaj Euh, espèce de comité de contrôle wala nu ko mën di tuddee commission bu nga xam ne xaj ne mooy yor loolu loolu itam la nga ca proposé sëñ bi dana ko ca nangu ba nga xam ne loolu danañ ko mën a def biix ba nga xam ne dara du ca wàññiku ci ni mu war a nekkee ba nga xam ne lu ca wàññiku ñooñee danañ ko teel a gis ba nga xam ne la ca war ci matukaay danañ ko ci def di xamal nag ñi nga xam ne xaw nu muy demee ëllëg jàpp naa ne kenn du xalaat jaar ci wenn yoon wurut yoon wii nga xam ne moom lañ tëral yoon wi nga xam ne moom la Cheikh Mountakha bëgg yoon wi nga xam ne yéen a ko jaar jaar ko ci xam-xam ba mu agsi fii ñu tëral ko pour Touba bu boobaa jàpp mën a kenn waaye nag ku ko ca def it ëllëg moom nga ko séqal na ko ñëpp xam ne lii ñor na ko ñor goo xam ne nii du ca bàyyi dara lu nga xam ne war naa am kon nag na ngeen continuer ci lii ci yoon wii muy yoonu fas yéene comme ni ngeen ko waxee léegi yoonu xam-xam lay doon yoon woo xam ne nii itam du du du réeroo du du du du du wuute ak li nga xam ne mooy loi yi ak règlement yi nga xam ne réew mi def na ko te booba tey ñu ngeen fi wax loolu la confirmé nga ko ñi fi intervention intervenant yëpp confirmé nañ ko te loolu yaakaar naa ne muy am kon nag la cay des bu ngeen noppee mooy euh, appliqué ko loola bu leen ci ragal dara yaakaar naa ne ñëpp dinañ ko nangoo appliquer ba ku ko nanguwute appliquer kooka minorité bu néew lañu benn ay benn benn lay doon te booba ñoo Cheikh Mountakha ñoo koy séq na ngeen fexe rek ba am euh, ay contrôleur wala inspection ay inspecteur yu nga xam ne ñooy seet jàngukaay yépp ba nga xam ne norme yi nga xam ne bëgg ngeen ko ñu dëppook ñoom ba nga xam ne kenn du mën a jaar te itam jàpp naa ne nii rek moo nar a réglé dafa mel ne représentant maire bi wax na ko la tubaal li fi nekk ci ay jàngukaay clandestin yàgg mën a ko tuddee fu ne daraa nga fa waaye loolu li ko waral mooy bëgg gi nit ñi bëgg jàng Touba dafa yéemu nit ñi bëgg jàng loo tax waxtu wi Cheikh Mountakha li xalaatam bi dafa dafa dafa dafa doy waar ndax Touba nit ñi dañoo bëgg jàng ba mu jaral leen lu ne jaral la leen ñuy dem fu ne jaral leen ña ci yoonu Mbàkke wa ña nga ci yoonu yoon wu ne ña nga ca fu nga xam ne école mën na faa dem wala ci biir dëkk bi ay école yoo xam ne aw tur la yoo xam ne seeni borom dañuy fayu lu cher a cher waaye nit ñi bëgg jàng tax na mu jaral leen kon nag loolu nañ fexe ba ku bëgg a jàngaleeti fa ngay jàngalee ak la ngay jàngale dëppoo lii nga xam ne wax ngeen ko fii tey tey te mën naa nekk ndax xam naa ne lu ci dem sëñ bi lu nga xam ne yéen xaj na mënul mënul am na lu tax mënu leen koo faj lu ci dem ci sëñ bi dana ko fajal bopp kon nag da ngeen mën a yaakaar naa ne eh, buñ demee ba àgg ba validation bi sotti yaakaar naa ne bañ jégle ko jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñëpp danañ dëppoog loolu donc itam bi nga jaaree ci yoon ba ñooñ daanaka ñu yor école yu am solo yëpp ci Touba bokk ci programme bi àndoon ceeg yéen ngeen ànd ak ñoom ci loolu ba nga xam ne ñoom ñëpp ci ànd kon ña cay des xaj na mooy ñi nga xam ne ay benn benn yu nga xam ne ñi ngi tuddee seen bopp seen seen seen bopp ay ay ay jàngalekat wala ay école te Eh, seen bopp rek tax ñu def ko daanaka ña ñuy jàngal lu la ñuy fay intéressé wu leen ci loolu nag ngeen fexe ba duutu am te yoon wi mooy yoon wi nga xam ne itam duutu am kon na ngeen xam ne sëñ bi ànd naag ànd ak yéen ci lii ànd gu mat sëkk na mu àndee woon ci yéen mbooleem ba mu ko tàmbalee te jox la kilifteef gi nga di ko saytu bënn nëga lépp fépp foo jaar xamal ko ko mu ànd ca ba nëga lii itam noonu la ca àndeeg yow kon kay li ciy des rek mooy danga fexe ba buñ koy def tatbiq incha allah ñu am ay moyens yuñ ko saytoo ba kenn ku ne dana mën a jaar fam mu war a jaar kenn ku ne dana mën a def dëppoo ak programme bi nga xam ne mooy programme Touba ci njàng mi incha allah eh, yoon la wu nga xam ne buñ ce buñ ko buñ ko defee ku ne jàpp nañ ne njàng ci Touba dana def développement bu rëy bu am solo boo xam ne nii comme na ma daan wax bu njëkk jàpp naa ne royukaay lay doon yoo xam ne nii ndax ñëpp bëgg Sénégal gépp jullit yëpp bëgg seen doom xam seen diine seen doom xam alquran xam seen diine kon kay buñ gisee foo xam ne nii ña ngi fay jàngale te leen yàqal seen programme bañ daan jàng dara kenn ku ne yaa ne siiw ndax ñëpp Sénégal yëpp ko bëgg jullit yëpp bëgg loolu kon nag yoon la wu nga xam ne yaakaar naa ne bu continuer bañ eh, bañ wone ko wér jàpp naa ne Sénégal gépp dinañ ci réew boobaa jàpp naa ne état bi dina ci ànd ak yéen ci Sénégal gépp ba nga xam ne mooy yoon ndax mooy lii mooy demande bu mag bi nit ñi loolu lañ bëgg kenn ku ne jullit bu ne comme ni ma ko waxee léegi bëgg na sa doom xam alxuraan sa doom xam sa di xam diineem sa doom yaru yarub diine ñëpp a ko bëgg kon lii tey exemple lay doon pour Sénégal gépp daanaa ko wax ne jàpp naa ne pour Afrique islamiste gépp lay doon Afrique islam gi nga xam ne mooy mooy suñu eh, eh, dendandoo yi nga xam ne dañooy julli nu bokki aada yaakaar naa ne bu boobaa ñëpp a ciy roy <coughs> ndax dana dem ba nga xam ne Sénégal gépp kenn ku ne da ko bëggal sa doom am éducation bu toll nii kon nag loolu ab liggéey la bu wër a wër la bu nga xam ne ñu dellu siwaat ci mun Mountakha la ko yàlla jagleel ci liggéey sëñ Tuubaa bi muy lu jëm ci e, njàng ñëpp a ngi ci woon boobaak léegi waaye njàngin wu kawe wii ak niñ ko organiser ak nim nar a nekk exemple ci Sénégal loolu mu ngi doog a am kon nag te loolu bu amee nii muy amee tàmbalee ko ci ñi koy organiser la te yow la kon nag ak cant gi mënut a ñàkk ñekk yow ak ñi nga àndaloon liggéey bi booba tey te waxtu ne ngeen di ko def defin wu rafet rafet defin woo xam ne definu digal la ndax amu ci dara lu ngeen di def looy def te jiitaloo Cheikh Mountakha xam ko ba joxe ci xalaatam ba joxe ci aweem ba joxe la ci ndigal kon nag bu agsee tey fii ba nga xam ne daanaka tàmbali rek a ci des kon alhamdulilah am nga cantam bu baax a baax kon nag mi ngi yeesal lépp lu nga xam ne wóolu woon na ko xalaatoon na ko ba jàpp ko ci yow ba tax mu dénk la lii loola kon day yokk loolu lii tey gën na koo yokk ndax gën naa boole xeeti njàngin yi nga xam ne am na Touba yëpp incha allah dana leen gën a boole ba mu nekk benn ba nga xam ne ñooy ñooy bokk daanaka lu ñuy jàng te loolu dafa am solo loolu loolu lu manqué woon la ndax naka jekk programme yi kenn ku nekk sa programme ba nga ni loolu nag kon def benn programme bu mel nii boo xam ne nii kenn ku ne da tënku muy lu leen amal njariñ mën na cee tënku ba kenn ku ne mën a dem université ëllëgi si biir nga xam langue yëpp ba nga xam ne université bu la neex ci àdduna da nga fa dem loolu réew la bu nga xam ne yaakaar naa ne kenn ku ne bëggoon na ko am tubaa koy am incha allah kon nag loolu ci seen taxawaay la kon nag yeesal cant gi ci ñi nga xam ne waaye éducation nationale yi nga invité te ñëwee nii ñu ñëwee ku leen déglu xam ne ñoom ñëpp boroomi xam-xam lañ loolu tax baatu professionnel ma jëfandikoo ko woon sànq bi may wax ci sama turu bopp ku leen ku dégg seeni wax xam ne nii li ñuy wax xam nañ ko dañ koo dund am ca expérience ñoo ngeen àndal ci lii kon nag ñëpp jàpp nañ ne lii du am échec incha allah kon nag noo ngi yeesal cant gi ñëpp ñu fi xam ne teew nañ fi tey di ko gën a yeesal ci yow loolu cantuk mu taxaa la ñii nga xam ne ñëw nañ fa itam ñu yeesal cantuk mu Mountakha ci ñoom ñu ngi leen di gërëm tànk yi ngeen ngeen dox def ko priorité junj nga léegi léegi sëñ Babacar eh, ne seen seen seen seen absence foofa daanaka vide la ndax soxla guñ leen fa soxla waaye loolu lépp ngeen def li priorité ba tax ngeen ñëw kon nag yàlla leen yàlla fay tànk yi yàlla leen yàlla taxaw yal na yàlla àggale yéenay Cheikh Mountakha ji ba Sénégal gépp man cee jariñu ba Afrique gépp man cee jaraw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli sëriñ ishaq ibnul muntaqa mbakke bachir sëriñ ahmad al badawi cheikh al saalih al mudir al am mbokk yi fi teew yëpp ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te di jël nuyoo suñu ministre Cheikh Oumar Anne di ko teg ci loxo Cheikh Isaaqa ngir mu tegal ñu ko ci loxo ku tedd ka Serigne Mountakha moom dafa bëggoon ñëw waaye yàlla dogal mu am empêchement ki topp ci moom tam di soxna Xadijatu Jóob Mbóoj yàlla dogal mu voyager waxoon naa ko léegi bi may tàmbali mais ñoom ñaar kenn ku ci nekk amoon nga yéene teew ci jataay bii ndax euh, yéene ju ñu am ci Touba ak njàngum Touba yitteel leen euh, moo taxit yaakaar naa ni xaw naa feeñ ci délégation bi ni ko sëñ Isaac waxoon léegi euh, xam ngeen ni man maa ngi bëgg a yàgg ministère mais ministre le fait que mu désigner trois directions da ngeen dem foofu teewal ma fa bariwul lu muy am dafa ni inspection des daara nañu dem division enseignement arabe nañu dem division enseignement privé nañu dem te li tax mu def loolu ñun am na lu ñu ci yaakaar mooy bu ñu fi jógee fexe ba problème bu posé wu ñu xam yan direction la concerné ak ban taxawaay lañ ci taxaw ba ba mu saafaraw kon loolu li muy wane rek mooy wane ni yitte ju ministre bi jox Touba ak yitte ju mu am ci ngir njàng mi jëm kanam muy liñ ko dénk waxoon naa léegi ni bi mu ñëwee ak léegi yàggul mais am na ñaari jataay yu ma toog mu wane ni am na yéene ngir liggéey ci daara yi ak njàngum lislaam yi Sénégal am na yeneen ci tax yoo xam ma ko waaye nekk lañ ma ko ni war ngaa góorgóorlu parce que ministre nee na président de la république euh, lettre de mission bi mu ko jox bokk na ci na nga yittewoo daara yi ak njàngum lislaam yi ci Sénégal kon loolu li ñu wane rek mooy muy président de la république muy ministre de mu muy Cheikh Omar Anne kenn ku nekk am nga yéene ngir taxaw jàppale njàngum arxuraan mi Sénégal ak njàngum diinam jëm ci kanam parce que loolu dafay cadré wu wala dafay bokk ci li nga xam ne sasu réew mi état bi la kenn ku ne xam ne ne éducation mission régalienne bu état la bañ na ko ba Sénégal def droit à l' ci constitution bi droit à l' ñëpp war a jàng dafa am obligation scolaire de ans yoo xamante ne nii dañu war a jàngal bépp doomu Sénégal te njàng moom ñu ko war a jàngal kenn waru koo ga kenn am kenn waru ko imposer kenn kenn ku nekk yaay xool la nga bëgg jàng loolu yaakaar naa mooy sensu diversification te l'offre éducative fexe ba képp ku nekk ci réew mi di doomu réew mi boo bëggee jàng nga jàng waaye kenn du la forcer benn type wala benn ordre d'enseignement yaakaar naa loolu moo taxoon ci jamono yëpp passé ci EDB 10 bi ñu doon wax procéder à à la demande non à par l'offre cest dire dikk rek li ngeen di jàng xewi na léegi ku ku nekk danga koy laaj la mu bëgg a jàng nga xool lan mooy sookul bi nga xam te ni ñëpp ko war a bokk ci réew mi pour tabax un bon citoyen yu bokk ko mais kenn ku nekk par rapport ak sa spécificité nga fexe ba jël en charge say préoccupation yoo xam te ni mooy tax yow nga nekk yëg sa bopp ci biir système bi yaakaar naa loolu léegi la ko IEF doon junj ci li ñuy tuddee académisation fexe ba région bu nekk ñu jël seen i spécificité transformé ko en programme fexe ba yar ci seen i xale ñu ëllëg ñu mën a tekki ëllëg ñu mën a dem famte ni ñoo jàllale message boobu ñoo jàllale boobu patrimoine culturel yaakaar naa ni loolu dafay cadré bu baax a baax li ma wax rek c'est en phase avec les orientations majeures di du système éducatif sénégalais kon bu ci amee ay benn localité wala ay nit wala ay kilifa diine yu jug wuutu état ci boobu liggéey yaakaar naa état mën na lu dul accompagner leen état mën leen jàppal leen te naa ne boobu dynamique ci la ministère bi nekk du tey wax naa fi léegi ni euh, depuis états généraux 81 la lañu gisoon ñun ci résolution yi booba xale la waaye ñoo jàng résolution ba léegi ñu ne dañu war a jël en charge éducation religieuse fexe ba jàngal nit ñi seen i valeur loolu répété waat ci Aziz yi wax dëgg yàlla euh, ba jamono yi passé maa ngi fàttaliku ji vers des années 2017 2018 bi bi ma ànd ak sëñ ñëw fii ci benn mission ñu visité daara yi fi nekk visité école El Azhar fi nekk bi ñu toogee dañu nañ mettre en place benn groupe de travail pour ñu xool naka la ñuy liggéeyee jàppale waa Touba ci wàllum jàng ak jàngale yaakaar naa loolu pour wax ni yàgg naa nekk ittey ministère bi ñu ci liggéey te nag daf fee fekk itam yitte jooju ci biir tubaa fekk fi yéen jooju ci biir Touba yaakaar naa ni képp kuy xool mat la Matlabul Fawzayn di nga xam ni borom la mu bëgg mooy jàng ak jàngale tegu ci njub képp kuy xool ay bindam ci téere yu dul jeex xam na ni euh, jàng ak yitte yittey jàngale ak tegu ci njub moo ko yitteel euh, léegi la ko cheikh bi wax te mooy du ma bugguma développé ci programme bi waaye <clears throat> li mu waxoon léegi Cheikh Issa wax na ko Cheikh Amadou Badi wax na ko te mooy isabtadal muridu bi tawxidi wal fiqhi ma at tasawufi l majidi muntahijan manhaja ahli sunna ma al jamaati naja min fitna id zulumatu ba bi bidaati atiqaadi te kufu an ittiba an anwaaril haadi maam nit ki euh, kenn mënu koo tabax te bàyyi pas-pasam ginnaaw nit ki kenn mënu ko tabax te bàyyi culture culture am ginnaaw parce que li ñuy wax universalité ñoo ngi koy commencé ci localité maanaam li ngay li al xususiyat al tar tartafia ilal mushtarak al am képp ku bàyyi sa culture bàyyi sa diine bàyyi sa passeport da ngay réer te nag mondialisation bi wane na lu bare bare bare bare te yaakaar naa ni ku préparé wul ak réseaux sociaux yi boo defu nànk di nga réer sa njaboot da nga yar réer yaakaar naa ni loolu wane ni war nañu bàyyi xel baax a baax suñu pas-pas bàyyi baax a baax suñu diine xam ni lii moom moo ñuy aar di ñu di ñu di ñu musal ci agression culturelle bi am. li tax ma ne fi euh, li yàgg na fi pas-pas bi ak yéene ji ak projet bi yàgg na fi yàlla dogal mu antu ci loxoy Cheikh al Muntaka yàlla na ko yàlla yokk fanam te wéral ko man maa ngi fàttaliku vers les mille 2010 ci màggal gi am na benn table ronde bu mag bu ñu defoon Cheikh Sam ci euh, quelle offre éducative pour Touba. maa ngi fàttaliku boobu Cheikh Ahmadou Rahman Cheikh Cheikh Mbacke Abdourahmane mais defoon na ci ci daara moderne Omar Ndiaye l'ancien IA bu Diourbel defoon na ci bi ci ci ci ci franc ci ci classique offre classique Moussa Fall suñu xarit defoon na ci benn o benn présentation ci franco arabe pour wane ni depuis 2010 lu ko jiitu laa wax ci li feeñ déjà amoon na ay initiative ngir fexe ba am offre bu adapté woo Touba ak réalité Touba yaakaar na nag loolu vraiment mi ngi commencé gis biti comme ni koy waxee euh, bara yaran nuur yaakaar nañ ca kam ca kanam la ko jëme ni ko suñ bi waxee ca kaw ca kanam yaakaar naa ni loolu am nañ ci yaakaar bu baax a baax incha allahu taala ñoo ngi sant bu baax a baax suñu xarit yi fi nekk ci euh, liggéey bi xam nañ seen compétence xam nañu seen sérieux moo tax may wax léegi ni bi ñu jógee ci système bi bàyyi nañ fi du mag a mag parce que kenn ku nekk gox ba nga nekkoon yaa ngi fa def liggéey bu rëy rëy rëy sëñ Saam ñoo bokkoon nekk Thiès wax dëgg yàlla yamul woon ci bi mu nekk IAM daan intervenir ci CRFP ba di intervenir ci IEF yi di intervenir ci région bi fépp fu ñu nekk mu jàppaleñ ci liggéey bi pour wane ni yàgg nañoo ànd xam nañ leen bu baax a baax a baax mën naa ko wax ci Abdou Lahad mën naa ko wax ci Cheikh Moukhtar Lo mën naa ko wax ci euh, sëñ Mountakha Diatara yàlla dogal ñoo bokk benn promotion kenn ku nekk yitte yi nga wane fii mooy ji nga wane fépp foo nekk Sénégal ni ñoo ngi rafetlu liggéey baax liggéey bi waxoon naa ko léegi may commencé liggéey bu xam-xamee la bu tegu fu wóor la te yaakaar na état bi foofu la jëm moo tax ma ne Touba mën ko considérer comme laboratoire incha allahu taala dinañ li ñu fi gis dañuy def euh, rapport comme ni ko cheikh bi waxee léegi compte bu dëgër def ay proposion même jox ko kilifa gi rendre compte l'autorité bu ko defee incha allah dina instruire ñu mu war a instruire moo xam IGF la ci rapport beeg contenu ñu boole ko yóbbu ko ñu def rapport mu nekk validation moom teen ni incha allahu taala yaakaar naa li am li ñu bëgg lépp nañ ko ci am kon ñun loolu mooy suñu cër ci jotaay bi vraiment fekkee nañu ko rafetlu nañ ko kontaan nañ ci ànd nañ ci bëgg nañ ci te dañuy kontaan ministre bi moom mooy autorité bi incha allahu taala te yaakaar naa dina leen woo balaa yàgg parce que mi ngi waaj a ñëw wax na ma ko waxoon naa ko may commencé nee na ma préparé ma euh, benn proposé benn date pour ñu ànd dem Touba pour mu jàkka saafante kilifa yi nemmikonteeg ñoom bu ko defee euh, ñu xool naka lañ leen di jàppale ci wàllu liggéey boobu. maa ngi jéggalu ci guddal yi ak kàddu yi en tout cas daal li ñu wax mooy kontaan nañu bu baax a baax liñ ñu fi gis dal na suñu xel. kontaan nañu bu baax a baax li fi gis dal na suñu xel parce que ay axlaam yu yàggale la si ñun yaakaar naa képp ku xam te nii xam nga islam xam ni muy tabaxee nit. lu mel nii boo gisee doo mën lu dul lu dul kontaan souvent bi ma daan nekk ci classe yi jàngale dama daan fàttali sama élèves yi euh, lettre bi Ahmad Amin bi doon doom ji nekkoon États-Unis di jàng di ko wax ni ko sama doom innaka xuliqta insanan za di wa aqalin wa ruux dañ laa bind nga am xel am ruux am euh, yaram mu ne ko sa yaram bii lekk ak naan moo koy dundal sa xel mi jàng ak gëstu moo koy dundal waaye sox ruux gi xam-xam ak jaamu yàlla rek moo ko mën a dundal ngir war ne ni nit est un être boo boo ci sàggane rek musiba am kon yaakaar naa ne loolu la ñu góorgóorlu suñu système yi ñu fexe ba amal yére ko ba jël toutes les dimensions de l'homme fekk mën ko yar orienté ko mu nekk njariñu àdduna ak àlaxira kon maa ngi jégalu baax baax a baax ci kaddu yi di sant baax di gërëm Cheikh Isaaxa ñoo ngi bëgg baax ci jataay bi ak si teewaay bi ak proposition yi nga def xam naa loolu ni ko Cheikhouna Abdoul Wahab waxee loolu la euh, jóge fi mu war a jóge waaye incha allah ñun rêve bu mag la ci ministère bi xam nañ bu ñu ko defee dinañu gën a booster baax a baax suñu liggéey ci biir Touba. Euh, Cheikh Amadou Badawi maa ngi sant di gërëm yaakaar naa ni li ñu daje lépp ñaaree ci yittey sëñ bi la nekk. li ñu daje lépp ci yittey bi la nekk daje naa moom ministère lu bëree bari benn mu jóge enseignement supérieur wala mu jóge éducation nationale. te lépp bi ñu mujjee daje ñoo ngi di mujjee daje ci bureau ministre Talla mu nekk ci yitte woo xam te sëñ bi ko sosoon ngir loolu kon yaakaar naa ni liggéey bi ñu la sas Euh, yaa ngi ci mbàkk yàlla na yàlla kattanal dooleel la ba liñ ci yéen yëpp yàlla def ko kon salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ورغبتي عن سوي العصيان في البشر خالوا سفي لتفويدي إلى ملكي أمري عن الكون في سف وفي كدري قالوا سفيه لحبي خالقي ملكي ولم أكن للبرايا أستكي ضرري قالوا سفيه لكوني لم أقف أحدا وما رجوت sëriñ bi de sëkk tey ëllëg war nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey